da nga doon filmé. yaa ngi koy topp suba ak ngoon. tey tey mënu leen menacé kenn defal ndànk rek. menacé wu ma ko. gis nga ma wax leen bi ñu nekkee. suba ak ngoon bu dégg bëccëg. écoute téléphone yi ñu nekkee. nañ ko sa sa sa téléphone ak lii preuve la nga ñu filmé yaa ñuy topp ah, sa moto bi repère nañ ko depuis trois mois ah, yow filmé nañ la du benn du ñaar ah, donc li ngeen di def sa supérieur laay waxal man wax ak yow je n'ai rien contre toi xam nga mais say supérieur laay dem dem ngeen yi